La ilaha illallah la illallah La ilaha illallah Abonne leen ci sen seen YouTube Darou TV abonne leen ci sen seen YouTube Darou TV kii jërë ngeen jëf mi ngok alarba juroom ñaari fan ci wéru juin 2023 am nañ bëgg ak banex di àndaat yeen ci émission bu mag bi dafa ci cosaan yeen ñi top di ñu seetaan ci biir réew mi ak ci biti réew ñi ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ci bayyi gi xel di leen di wax way leen di abonné daru Fall TV tey ji am na mbégte dalalaat ganam Serigne mustapha Fall fatikan Kane ci waxtaan wu yaatu ci wàllum actualité alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokki julit yépp ak mbokki taalibe yi di delsiwaat tey ci yowmal arboha di fas yéene dikkaat lenn ci ay tontu lenn ci ay laaj xanaa bala ñoo tàmbale rek ñuy wax mbokk yi taalibe yi nga xam ne ñooy safoo Darou Fall TV ñu gën di ko bàyyi xel ndax fas nañu yene alarba ju jot ñu ñew andi yenn tomb wala ben tomb ci alquran ak lemi ji garab gi nga xamni ni lañuy la lañuy la yëngu done won ko ci sunu wajur andi ci lenn ci ay leral rek bismillah. ñu ngoog sëriñ Moustapha Fall Fatick am moom sëriñ Modou Aminta Fall ñu leen ko baax a waxee rek loolu soxna Ndeye Fall moom sëriñ Abdoulaye Fall ndax ñu am mbégte di ko recevoir di ko daral ci émission fajum cosaan te laata bu jot daf àllar tey jii yamoo juróom-ñaari fan ci weeru juin deux mille vingt trois histoire fii ci émission bi. kon sunu gan sëriñ Moustapha Fall Fatick ginnaaw nuyo sa nuyoo saafonte ak bokki sunu ko question bu njëkk lañ lay laaj mu di mbirum actualité loo xam ne jamono ji mo leme jamono ji lol andi fi polemique bu yaatu ci rew mi jaxasoo lu bëree bëri yaax ci rew mi mu di mbirum veer mo def defut mu yàgg lol ba lu bëree bëri yaax si tey ñi toog ak yow fa ci fa ci ci waxtaan li ñu laaj ba xam ndax am na ay xista yu ci alxuraan wax ci bu njëkkoon bii bu mel ni masaan am nan nañ ko naan àtteewoo bii mooy question bi nga xam bëgg bëgg nañu ko posé ginnaaw jàkkaarloo jàkkaarloo nañu ak yow ngeen nañu ci ay leeral ndax ak tuyaat la boo xam ne jamono jamono ji soxla nañ ko kuñ ci leeral tey lënd na jamono lool ñu bàyyi la suñu soxla leeral ñu loolu loo xam nu mu demee. waaw sëñ maam Cheikh ñu ngi lay nuyu du bari te di la siyaarewaat di la wax rek wax ju gàtt mooy waaw loolu am na. Mm-hmm. am na. juróom am na wenn saar woo xam ne suratu Yuusuf lañ koy wax. suratu Yuusuf. alayhi salaam. laata laaj bi ngay wax nii am na juróom-ñetti question yoo xam ni. jiitu na yii ngay wax nga xam ne soo ma ko laajoon yëpp dama naan la waaw question bi am na yeneen question yu ne ci ginnaawam yoo xam ne soo ma ci laajoon it mën naa war naa mat téeméer wala war naa mat ñaar téeméer wala war naa mat junni te lépp ci benn saar bi la. si si saaru Yuusuf waaw moo tax law sa altani haadihi la fa. sa ajabtuka insha rabbi fi haasi suura su fekkoon laaj nga ma laaj yi boo ne moon tey ndax yàlla nettali na kenn benn xisa bu fi amoon ba weesu suñu mboro ñëw nettali ko kooka kon dama naan la waaw boo demee ci sootu yusuf yusuf ba muy xew fekk fi yonent bi sallallahu alayhi wa histoire yi dafa bari woon dem nga sax ba dégg ñu naan nit li tax muy dagg nii ay lii tax baaraam yi nekk am am am am ay rëdd nii dégg nga ñu naan la ni yuusufa jigéen ña dafa taaroon ba jigéen ña dagg seen loxo loolu dëgg la waaye amut noonu. dafa taaroon ba jigéen ñi daan dagg seen loxo nga taar. waaw loolu moo waral nit nit ki di am lii hmm. am na ñu ko wax. waaye li lay xamal loolu li lay xamal yooyu ak yu mel ni moom yu ci bari du dëgg. motax sunu borom ni yonent bi nahnu naxussu alayka ahsanal xasas waaw ñu ko dañ la ko netli ngën di netli wala gën ja rafeti netli ta lan dama la koy wax yu ndax li lu fi jaaram ba weey la te xamoko yow wa in kunta min qablihi la min al ghafilin njëkk li di xew ni netli bi di am réeré woon ngeen yéen ñëpp num mu demee moo tax ma nett la ko soo ma laajoon ni ma ndax sunu boroom dana wan kenn dara ci ay nelaw kenn dara tëdd sunu boroom wan ko dara ci ay nelaw muy muy doon gént muy doon gént walla muy doon leneen mm. dama naan la waaw te ci saar yu laa lay tontu waaw ndax baayam dane woon yaa bu nay laa tax susu ruyaaka xalaa ixwatika foofu rek mën naa faa yem kon su borom dana wane dara ci ay nelaw nga ma ndax suñu borom dana tànn kenn ku gént war ko koo mën a laaj te boobaa du doon firi ndax te ta'wil ak taxbiir duñ benn gént lañuy firi waaye lu yàlla wane ci ay nelaw loolu moom bu ki koy wax ta'wil lay tudd waaw kon ta'wil ak taxbiir duñ benn waaw ta'wilu ru'yaaya min xablu xat jahalaha rabbi xaqan kon loolu lu yàgg la woon mu mel ni danga boo ma laajoon ni ma ndax nit ak mbokk ay mbokkam dara war na faa mën a xew comme ñu mbokkal bàyyi wala ñu wala ay bokkam rek dara war na faa mën a xew lu lu rafet lu ñaaw war na faa mën a xew dama naan la waaw waaw te ci biir saar wi ci laa koy tontu laxad kaana fii yusuf wa ixwatihi aayatun lisaailiin demoon na sax ba ci uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum nga xam ni kon loolu dana xew ci bok bokk euh, nga laaj ma ni ma ndax nit soo ma laajoon ni ma ndax nit war naa mën a fen kilifaam moo xam baay la moo xam ku mën a doon dama naan la waaw ndax ñoom dañoo waxoon ni yaa abaana yusuf lu tax dooñu lu tax ci yusuf fekk booba te nga xamee ni nit war naa mën a wax lu dëgg kilifaam hmm. ndax inna dhahabna wa tarak nastabixu wa tarak naa hinda mataaxina fa akalahu dhib kon fen nañ dañoo bàyyi woon ci suñu bagage dem di rawante tilliga lekk ko loolu la waaw mooy ñi mbokk yi rek bañ dëppaatee tamit dañoo gën dañoo gën a di wax bañ dëppee loolu lañu wax ñu ñu dikk nag ba ci cas yi nga xam ne moo aw moo moo am mooy nga moo nga ma laaj ndax am na ñaar ñoo xam ni dañoo jiiñante kii ni damaa def dara kii ni defuma dara bu doon ci jamono yi Seydina Yuusuf la jamono yooyu li am nii am na muy Yuusuf bañ ko jàppee bu ko mbokk yi génnee muy doxale mission suñu borom ca Misra ba mu àggee foofa ab jaam la fa ndax dañ ko mbokk yi dañ koo jaay biñ ko jaayee ki ko jënd moom moo doon xasiisu Misra maanaam bu doon ci jamono yi moom mooy ministre de l'intérieur mooy ministre de l'intérieur waaye mook soxnaam nag dañoo sëy yàlla dogal amuñu doom ba mu ñëwee ci marché bi fekk ñuy jaay Yuusuf mu jënd ko waaye ba mu ko jëndee lam njëkk a wax soxna si dane ko akrimi maswaaxum akrimi maswaaxum waaw xasaa an yan faxanaa aw na taxi sa wala dan léegi nag waccu wayam nak bu ko jappé ab jam jappé ko dom waye bam ko jappé dom nak ba dem ba yusufa dem ba don mak wala ma balakha asuddahu foofu nak la mbir ma xewé yalla dako natou ndax fam fam joggé ci bayam bay bi dako bëgg ba amu ci sago waaw motax tax mbokk yi génn ko ñu jaay ko jam ki ko jënd ñew soxna ci bëgg ko ba amu ci sago ñàkk gim ci ñàkk sago nag moo tax mu doxee mu doxee mu doxe ni mu doxe moom bu doon doon bu doon jigéen jigéen lañ baaxoo xam ne góor lañ baaxoo xam ne mooy weelu jigéen waaye soxna si moom moo doon weelu Yuusuf waaw moom moo ko doon violé mm-hmm. wa raawadathu llati huwa fii baytiha dégg nga wa raawadathu waaw waaw waaw wa raawadathu la wax allati kon dellu na ci soxna si huwa mom moy yusuf waye fi baytiha ci bir negam la ndax dafa teud ba goudi mu xol ki sa ci mom di jigen manam bu don bu don ci ci suñ jamono ji secrétaire moy moy ki la gëna jigé waye mom da xol soxna ci bu na jigé mu teud ba goudi mu defaru ba jek ne demal wol ma diw kon xana mi ngi koy bëgg mi ngi koy bëgg daal di sakku moom waaw soxna si bi mu ko woowee pale bi dafa bari woon ay bunt bunt bu mu jaar soxna si dana ko kay wuyu sa kilifa Yuusufa jàpp ni kilifa ma koy woo mm-hmm. moom mu jóg ci guddi gi daal di ànd ak moom waaw waaw waaw waaw ba mu àggee dañu ko jiitul bunt bu mu bu mu tëj bu mu jàll bunt bu Yuusufa dugg ndiig li da koy daldi tëj roppi caabi ji moom xamul la xew ndax ndax ndax mu eh, mhm. ko ci kër gi. mu buntu ba ci buntu ba mujj. mu buntu ba mujj taqaloog néeg soxna si mu tëj ko tëj leen fa ñoom ñaar daal jaar ca beneen buntu ba. moom borom kër. Oh, déedéet moom moom soxna si dafa am ku ko dafa am ku jigéen dafa am ku jigéen ku ko jege. kooku la yónnee ko dama wool ma ko. Mm-hmm. bi mu ko woowee na moom moo doon tëj bunt yi. di ko tëj di ko tëj ba ci bunt bi taxaloog néegam mu mu dugg mu dugg mu dugg mu tëj ko génn tëj leen fa ñoom ñaar dem. Mm-hmm. kon moom xam na li xew. Mm-hmm. waaw. ndax xam na ni kii amul sago ci kii waaye. su fekkoon jamono ji ñi xew ji li ñi waxe ni amna amna muy vidéo amna kon xam nga kon dafa melni viol bi dafa melni mom soxna si moko programmé ba pare dem sakko ko wara wadat mulati hu fi baytiha wa xallaqatil abwab xallaqatil abwab moy li ndaw ci don def dafa tejj bunti yi mm-hmm. bimu ñewé ba ñom ñaar dong ñu wéet nak mu ne ko hété lak gawal ñeu def li la neex ci man ma ngi ni mom soxna ci moko proposer proposé. waaw. to lol nak mo bari jamono. soxna ministre de l'intérieur ci jamono boba mo don zulaykha mom mo wax li hmm. waye dafa am lu am solo lu Yuusuf wax dani innahu rabbiya ahsana maswaya dani ko sa boroom kër moo ma yar ma jamm ndax akrimi maswaahu la ko wax kon jappi bu ko jam motax yusuf tontu ko ne ko ahsana maswaaya sama waccu way fi dako dako dako da ko rafetal lool jàppe ma kom dom ne ko nak innahu la yuflihu zalimun wacce nono kon lol dang ci degge ni nit ku ne bu wara def lu ñaaw mana am lum xol am lum ko def mu ngir ngir ko ci waaw warna am kum ci rus wala warna am kam bëgg a lu ñaaw mo xam lu mëna doon hmm. mu ne tek nag daal taxaw ah daal ni diw kat jaar nañ barab sangam jaar barab sangam kenn du la lebal ñek nga far nga fayé ko njëkkaar fofu la taxaw alquran ni wala khad hamma wala khad hammat bihi wa hamma biha ñe baat yoy nak ndaw si yittewoo na ko lool waaye moom it yittewoo na ndaw si loolu nag lu ne la ci mu fassiru nay wax. waaw lu ne am nañ sax koo xam ne nee nañ malaaka moo ñëw riisu ko la newoon ci moom génn yëgatul dara yooyu yëpp waaye loolu des duñ ci taxaw. ay yoo xam ne. mangoo. maanaam waaye waaw waaye law laa an law laa an raa burhana rabbihi bu fekkon sun borom ñewul ak dari daal di la la li wara xew ci sen digeunte kon mbir ma dana ñaaw kathalika li nasrifa anhu su'a wal fahsa sun borom mo wax lool ndax innahu min hibadina al mukhlasin yusuf dafa bokk sun jam ñi selal parce que selal weesuwut jigen defaru ba jek ni la kaay def ci man nanga ah diw sama maga deret ji dawa ci mom moy dawa ci man ño bokk ndey ak baye hmm. wala ño bokk baye wala ah diw kat sama baye hmm. ndax bayam ak sama baye ño bokk nangam ah ñewul def ci man nga ne ah duma ko def diw defal na ma tranga nangam nangam ñewul def ci man nga ne duma ko def hmm. diw diw ab jambour la ku bax la te musuma toj musuma def nangam yoy yep am lo xamne ginaaw ne ko yooyu yëpp dafa am nag waaye foofa suñu borom ba mu wëlbatee ñaawtee fi waroon a am dafa wax yu Yuusuf ne ko loo bëgg ma fekk si la ci Yuusuf daal di samp aw xelam bunt bu mu dal bu mu dal mel ni malaayka yi ñoo koy ubbi bunt bi daan kàccat bunt bu amatul caabi parce que ndaw sa wax na caabi ja bunt bi daan kàccat ubbeeku loolu mooy was tabaxal baaba ñu jiit jiitlante njëkkante bunt ba waye xam nga luy problème bi wa alfa ya sayyidahal dal baab dañu fekk jëkkër ji jëkkër yi soxna ci ne ci buntu bi ndax dafa dégg buru bi gis nga jigéen moom moo ko ci bi de ci guddi waaw mm-hmm. moo ko ci palé bi ci guddi gi ak ndigam liko don li li ndigam li nga xamni moko don moko don doxal ay yonetam waaw moy secrétaire waaw yalla dogal bimu bu dee ku jigéen sox duñu wax secrétaire tax naa. Hmm? bu dee jigéen ñi jàng tubaab nu ñu koy waxee. yaa ngi dégg. Ah. waaye foofu duñ fa taxaw ndax loolu daanaka li ci am solo ëpp solo rek mooy lii ma la wax nii bi mu ñëwee fekk ko ci bunt bi mu taxaw ndaw si daal di yuuxu waaye avant muy yuuxu nag dafa am lu mu def daa fekk mu jàpp mu jàpp mbub mi xotti wa xaddat xamiisuhu min dubur da koo xotti ci ginnaaw xaddat kon da ngay xamee ci aay bi rek ndaw si ba tey moom yàlla ni muy waxee da xam ne ndaw si ba tey mooy tooñ ndaw waxul wa xadda waaw da xam ne ba tey moom mooy tooñ fekk xotti na ko bi ko xottee nag la sawaay dañu bunt bi ubbeeku ñu fekk sëñ bi taxaw ci bunt bi waaw ndaw si daan soxna si daan ni maa jasaau man araada bi ahlika suu an illa an yus jana dégg lan mooy payu ku def lu ñaaw ci sa waa kër loolu nga tëj ko. moom soxna si moo posé lii borom moo ko wax loolu. illa an yus jana aw xataabun alim lu may nga tëj ko wala nga mbugal ko mbugal mu metti rek Yuusufa amul benn pexe dani hiya raawadat nii soxna si kat moom moo ma doon violé man violé ma ko de moom doon violé mm-hmm. nag soxna si ñoom ñaar kii wax na kii wax léegi lan pexe borom war a def yow parce que ndaw si moom ki ko war a seede ñoo na ba ne Youssouf moom moo fa dugg. Ah. gis naa ko dugg guddi te moom secrétaire waaw moom mi nga xam ne moo wooyoo Youssouf nag kay wuyu ndaw si. soxna si mm-hmm. moom. ba lii xew xewee ba nag bañ génn si biti ba dajeeg borom kër. Hmm. moom ndaw si moo taxaw séeréer Yuusuf ne kenn dugaloo fu moo fa dugal boppam ndax moo moom moo bu guddi mu jóg mu jóg dem fa. Hmm. te moom moo ko waaw fa doon wuti daal. Hmm. la fa doon wut dañ koo woo. am kon cause bu tax mu dem fa. du du ni rek yow mi nga. Euh, ndax mën ngaa tëdd ba guddi nga jég doxantu wala nga wala nangam dara tax nga nga génn te du sa kër nga gis ko sàcc kër jàmbur nga sàcc ko déet nga nga jàpp ko bul du caageen yow mi ko jàpp yow sàcc nga déedéet mm, mm, mm, mbir mi de bu noonu du ko jàpp sàcc la nga moo tax waxtu wu ne lu mën a xew ci àdduna boo delloo ci téere bi mën ngaa bañ a juum ndax wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulaika humul kaafiruun fa ulaika humul zaalimuun fa ulaika humul faasiquun xam nga sëñ bi boo gisee ma laaj laaj bi. Mm-hmm. jamono yi lii yëpp act actualité boo xam ne ñaari at ñett at mi ngi fi. Mm-hmm. ci mbiru mel nii ñu dem ba dëgg ji ñu génn ko am suñu fete. Mm-hmm. waaye ne ki dëgg ji eh, eh, ki ko yaa yow kat yow lañ def. man defoo yow lañ waaye nag nangam la la teg. ki nga xam ne nee moom moo tooñ ba nag boole moom xañ nañ ko dëggam waaye nag nag yow. dina la jox lo meuna a dëgërloo ba am deug ci kaw ki nga toy manam moy li ma la wax rek motax tax la so lu fi fi lu fi musu am danak boo ko amu fi ndax lepp li tax alcorane di nettali day bëgg ñu jàngee ci li mu nettali waaye ñoom ñaar ñepp buñu ñu ki ni dama don sakku yusuf ni mo déedéet sàkkuwuma ko mo moo solo moy so ki nga xam moy borom kër bi fekk ci buntu bi dafa am lu mu wax dani Yuusufa yow lan moy sa sédé ndax yow da nga tëdd bu guddi nga dem fa ndaw ci genn and ak yow jilanté di jooy ni yaa ko doon violé waaw légui lan moy sa sédé fofa amul médecin amu fa ba ñuy dem naan dañu def ay prélèvement ak nangam na amu fa fofa prélèvement amu fa lu mu def Sun borom moko wax yo fekk soxna si dafa am ben seureum bu ko setti won yor dom jo xam dom ji dafa wex lool ci guddigi bim ne tekk sun borom wax ñuko ñuko di joy woo mu ñew seer len moy xale bo xam day namp mënu gu ta wax moy wa shahida shahidun min ahliha waxul min ahlihi de min ahliha muni hindi man yashat loolu la Yuusuf dane hindi man yashat am naa ko ma seede ñu ne ko kan la mu ne xale boobu di jooy oh, xale mooy waaw moo moo gane si woon di bokk moom euh, di di doomi bàyyam doomi bàyyi taxam la mu ne mën na maa seede ñu ne ko yow ndax danga ma jëkkër ji ne ko ndax danga may reetaan ah maanaam ndax da may fontoo daal. xale bi xale nu mu la mën a seedee nañ ko andi mu ne andi leen ko rek ñu andi ko sunu borom may ko mu ñaan daal di tufle ci bopp xale bi. moom Yuusuf waaw ni ko ishhad bil haqq seedeel dëgg xale bi daal di gën a jooy gis nga yàlla ni muy programme xale bi daal gën a jooy. yow ñun ngay reetaan mu raayaat bopp bi jaar ci turu xale bi ne ko seedeel dëgg xale bi daal ni man maa ngi wax ci ndigalal yàlla waaw hmm. daal ni in kaana xamiisuhu xodda min xubulin fa sadaxat bu fekkee mbuum mi daa xotti koo fii fa sadaxat kon ndaw si wax na dëgg waxu moomu yusufa minal kaatibin daa bokk ci ñi wax lu dul noona waaye wa in kaana xam yu suhu xudda min duburin bu fekkee dafa xottikoo fii xale bay wax ñoom ñëpp ñu ngi dégg fa kasabat kon ndaw si fen na waxoo moomu yusufa mina saadixiin wax na dëgg bokk na ci ñi wax dëgg ñi dëggal bi mu waxee loolu jëkkër ji dafa daal di film mbagum yusufa mi rek mu féete ginnaaw mu xool mu xotti ko ci ginnaaw mooy fala maara a xamiisahu xudda min duburin borom kër bi daan ne daan Yuusuf xaala mu ne innahu min kaydi kunna inna kayda kunna xadim lii seen i pexe la bokk. borom kër waaw lii seen pexe la bokk seen i pexe dafa dafa dafa. nanguwul daal. nangu na kay. lam ci teg moo lay xamal nangu la ndax dana yuusufu ahrid han hada yuusufu bàyyi lii fàtte ko fàtte ko. maanaam <laughs> dossier boobu dañ ko dañ dañ ko classé. dañ ko classé teg ne. waaw nekkaat ci leneen. waaw ngir xam dossier bi. Euh, vide la dox. waaw mën naa dal mën naa gàllankoor moom. moom si waaw waaye ndaw si dafay dafa continuer bëgg parce que dafa affaire dafa commencé siiw ñu ne su lay xa daal benn jaam bu mu jëndoon yosar siif lañ ko doon wax moom la dem sàkku doon sàkku. xewaa bi tasaaroo waaye jëkkër ji moom li wax mooy yusu yow ndaw si dana yuusu fàttali lii te ndaw si yow it wastaxfir li daan bik kon nangu na ni moo tooñ ndax ki kunti minal xaatiin ni ko yow li nga def lu ñaaw la li nga def ni amul leen lu ko gën a ñaaw wala ñi def li gën a ñaaw ci àdduna suñ la ci doon boole yow ci la bu ñu la doon bu ñu la doon lim yow ci lañ lay boole. moom soxna si nag affaire bi commencé. nit ñi tam mu commencé siiw ah diw viol na diw su lay xew viol waxaala niswatum fil madinata fil madinati daan ne imraatul xasiisi turaawidu fataaha xan nafsihi xad shaxafaha hubban inna la naraha fi dalalin mubin xat soxafa xubban mooy xol boo xam ne mbëggeel da ko wër ba mu ba ba ba mu daj falam falammaa samihat bi makrihinna boko boko ba boko ndaw bo ko Suleyxa dege ni affaire mi ngi tassaro arsalat ilayhinna dafa yable ci ñom ñu leen yeen dama leen invité ben rer dîner waaw mom batay mi ngi deugal li tax mu def ko ndax da bëgg xam ne ñepp ko bëgg kenn bañu ko motax mu invité len rer jox leen ñu lek ba sour mu tejj Yusuf bañ lekké ba sour ba yalla dogal nak mu jox len ku ne sa firu yi nga wara lek tegal la sa paka tegal la sa pomme ak sa orange mu ni mu ndaw sa mu yennon mu ne ko ne lu fu mu genn waaw ñom def nañ seen rang ba hmm wa ahtadat lahunna muttakan muttakan wa ahtadat lahunna muttakan waaw wa aatat kulla waaxidatin minhunna sikkiinan yor nga paaka bi nga xam ne moo nga war a dagge pour xolli sa orange wala sa pomme waxaalat uxruj alayhinna yusufa génnal yusufa jaar seen seen biir war a jox su Suleyxa xam nga lu mu doon ci lu tax mu jaar seen biir ndax ñun ñëpp dañoo yor seen palaat mu war a indil nag kilifaam li mu war a lekk loolu la yor jaar seen biir nag bañ ko gisee ñoom ñëpp ñu daal di am problème maara ay falammaa raaynahu akbarnahu wa xataxna na ñu tàmm dagg seen loxo yi waxul na haasa lillah xam paaka yi yoroon waaw dafa lu ko taxoon a jóg waaw bañ gisee Yusuf waaw tayituñ ko tayituñ ko li ñu doon dagg tayuñ di ko dagg nii dañoo far dagg seen loxo yi moo tax ñu naan góor day am lii nit day am lii fekk déedéet nit amoon na lii avant loolu waaye xet nett yi ñaaw yi moo tax yàlla ni yonante bi nax nu naxusu xale ka sa xasas bi mu génnee ñu dagg loxo yi dagg seen loxo yi ba ba deret ji toq nga xam ne ba mu jàllee ba bañ koy seet rek dani xaasha lillah ma haasa basaran lii kay du nit in haasa illa malakun karim lii malaaka la waaye du nit waaw lii du nit lii malaaka la xam nga lu ñu jublu woon xaalat fa zaalikunna ah waaye yéen seen lii nag lumtun nani fihi fii li nga modon yedde yusuf wala qad rawatuhu han nafsihi man mako man sama bop mako ko wa mo wax lolu dan ni yéen benn loh. ngeen ko gis dag loxo man mi dekk ak mom 20 ans nak yéen ben yon da ngeen ko gis dag seen loxo man mi dekk ak mom 20 ans yar ko bam tol ni taram bi dima bëgg def li loolu la jubloon a jà loolu la jubloon a jàggale waaye wuyu ma wuyu ma bàyyiwut de ah. ci saasa la Yuusuf wala in lam yafal ma amuruhu la yasjunun na waaw la yus janan na la yus janan na def na la tëj wala yekkoon na mina saaxirin ba mu tuddee tëj nag la Yuusufa ni suñ borom asijnu ahabbu ilayya mimma yadkhuluni man kasso bi sax moma gënal ta kasso warna na di dox mission parce que ay yëfar lañ ta war na leen tax wax wo leen ci l'islam motax mu tan dem kasso ba fa yim ko teje nak ba ay jamono kon lolu kay leer na nañ leer na lolu nak da nga nag euh, daa waxtaan euh, émission bi nag mo moo xaw a tardé hmm. waaye am na laaj boo ñor ba xam ne bëggoon naa nga dikkal ma si mooy suñu njiit yi ñuy jiite. Hmm. ana am njiit nan la war a doxale ak ñi mu jiite ndax war naa dem ba toll fi jamono bëgg dara bëgg dara bëgg dara si boppam tax ñi jëloon seen alal dénk ko ko mu wóor jël jël liñ ko dénk ko di ko xeexe. déet njiit moom sëñ bi wóor ndax kuy kuy laaj kuy la kuy laaj ñu dénk la ko ne am na lu tax ngay laaj. Hmm. yaa ni def leen joxe leen ma ma def nangam ak nangam ak nangam kon benn len rek mooy mooy mooy war ak njiit mooy la nga waxoon nga def ko loolu rek la te it digle loo deful ak teraloo bawul loolu su borom rek ko man nit ku mën a doon ci àdduna sooy àtte xoolal sa aqulaay taala nga xool ki ngay àtte li nga koy àtte ndax yow mas nga ko def wala mosoo ko def. booy jiiñ nit xoolal li nga koy jiiñ yow ba xam yow mas nga ko def di mosoo ko def su fekkee mas nga ko def nga jéem a na la yàlla suturaaloon ba feeñut nga jéem a dem tuubi ko sa diggante ak sa borom waaye bu ci jéem a condamné kenn jëm ci àtte kenn ndax nit booy digle da li ngay digle da nga koy def booy tere li ngay tere da nga koy bàyyi waaye bañ yor ji koy téere ndax téere yi digle njàpp ni moom boo ci tooyal mu yàqu waaye téere nag du nit kilifa euh. ndax yàlla moo ne yonent bi moo ne ku topp ku topp njiit topp nga ma njiit topp waaw ku ko mooy mooy nga ma mm-hmm. waaye ban njiit mm-hmm. loolu nag ban njiit léegi boo jiitee li nga euh, li tax nga jiitee daa am loo wax mm-hmm. moo tax nga jiitee daa am loo wax nit ñi wóolu la gëm lool wóolu la jox la ko kon benn sart rek nga war a jëflante ñoom mooy la nga wax waxalaat wa nga jëw wax waxante woon ak ñoom. boo demee ba toog ba jot si ci la nga sàkk nga def ko waaw. waaye nag lu may lu may ko. Hmm. xam ne bëgg nga. bul personnaliser débat bi <laughs> bàyyil suñu débat bi ngay personnaliser lii dañ koy wax pour ba àdduna tukki buñ toogee buñ toogee trois ans ans <laughs> ku xool lii man war cee mën a jariñoo. waaw ndax débat bi alxuraan la. xam nga alxuraan la. alxuraan ñun fekkuñ ko fi suñu maam fekkuñ ko fi ba yonent bi gàddaayee Medina ak tey jii ñi ñi ngi ci damsasin damtasin ñu ngi ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukki ak ak ñeent fukki ak ñeent te ba léegi ni téere baa ngi dox di wax dëgg bis set mu meen woog jamono kon buñ buñ ko waxee ku ko xool da nga xam ni lii demee kon bi euh, ñu des waaw sees bi ñuy toog nga xam ne am am na lu ko lu mm. mm. li may li may waxaat ci mos xam rek mooy mos xam moom dafay ne ngir faj. Mm-hmm. képp koo xam ni gis nga ni sa suufu tànk yi boo solee aw dal di liggéey dafay tàng. Mm-hmm. tàng jër wala nga tëdd ba guddi gis ni dafay tàng jër. Mm-hmm. wala soo yeewoo da ngay gis ni sa ndigli dafay metti wala nga gis sa biir bi dafay jooy ngelaw li ci ne ci biir di ballonné di wër amul fu mu jaar ba génn wala léeg muy génn sa te doo ko tey hmm? jëfandikoon mos xam loolu tey loolu la ñuy wax tey képp koo xam da ngaa amee suukar jabet gis ne da ngaa dem baras ko loo xool xam ne yow mi wéroo da ngaa jabet sa yaram mi dafa ras hmm. naanal mos xam dafa dellusi da ko dellusiwaat po bi da ko dellusiwaat tey koo waxul ni da jabet du ko xam te en même temps day traité wàllu suukar si da koy wàcc. benn laaj bi ñu daane mooy laaj bi lëmb suñu xel moo di lan mooy ndeyu jàngoro yi moom mooy mooy ndoxum siti. mooy bunt bi bu ubbee lépp ñëw. waaw mooy bunt bi nga xam ni dafay dafay ngelaw ànd ak poussière nga ubbi bunt bi bu ubbi bunt bi jàngoro yëpp am nañ possibilité dugg ci biir. ndax yaa ngi may accès. ndax yaa ngi may accès nag moom lay faj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kon ba benen dajé mi ngoog jaajëfal ko mom sunu gan Serigne Moustapha Fall Faty Kane fi leen ndar keppe jotaay bi faram fàcc loon bu yaatu ci wàllum actualité boo leen di ñu safal ñu gën a saboo ngeen def léegi léegi activité yi mos xam en face ñaari bayfa pala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu tàyyi di leen ñëwal fii ci sees mos xam route de Mbacké à Fass ñaari Baye Fall ginnaaw ba leen sees mos xam andilee diw xam ba ngeen xamoon tak ak bii ma leen andi la bi nak pour karaw gu ruus la kep ko sa karaw di ruus ba jaaxal la lol cecil mos xam rudde Mbacké à face ñaari bayfal Fall seran ba Serigne Moustapha Fall fatikat diw xam traitement bi deux mois ke jour la nga am resultat yu wor nañ karaw gu saq lol ginaaw ba di xam ñewé nak xatial na foroti bi di mos xam foroti bi li tax sees mos xam andi leen ko dafa bax lol ci yaram bu metti kep ko xam am nga galankor yaram bu metti fexel ba am ci foroti bi di mos xam te nga xam limuy jariñ mi ngi fi ci rudde mbake afas ñaari Baay Faal sees mosxam Serigne mustapha Fall Fatikan moy xartu askan wi ginnaaw bu mu fàttali leen jàngoor yi nga xam ne Serigne mustapha Fall Fatikan da koy faj bokk na si prostate moo du jàngoor yu kajoor ndoxum di diabète estomac ak lépp lu ci aju la ilaha subhanallah abonné leen ci seen seen youtube Darfal TV Abonnez-vous sur seen seen youtube Darfal Fall TV